waxen bi quoi moo tax yaru dafa baax yaru dafa baax voilà maintenant ñu continuer avant ñuy ñëwaat ci mbiru Dame Dieng dama bëgg ñu wax tuuti Че mbiru Cheikh Niass suñu compatriote boobu nga xamantene fa France ñaw Sénégal pour magal si ndeysaan ko ko xam mo na ma grand jour bu muy dem de jëlee xaalis ci banque bi pour magali jour boobu la am problème ak ah, benn booy policier xam nga avant ñuy dugg ci wax ji sax dañ koy ñaanal yàlla oyofal suuf si kawam te xaaral ko àjjana te jéggal ko ay bàkkaaram fekk amoon na ay bàkkaar di masawu soxnaam yaayam fa même ay frère ay sœur mais surtout aussi ay doomam vidéo boobu doomam def ma joy lo quoi ben ma traduire lay ngon sama noppi du dégg quoi mais am video vidéo xam sama intéressé ya, dañ ma koy traduire pour les sénégalais de la diaspora ben mbir la leen di ñaan bu ngeen demee sénégal police wala homme de tenue wala gendarme ko bu leen ko faale même bu leen laaja xaalis sax jox leen ko ngeen dem pourquoi parce que dañ leen di tardal parce que tey Cheikh décédé na dem na kan mooy toppatoo soxnaam kan mooy yore yaayam kan mooy dundal ay doomam assurer seen avenir xool leen ñu màgg toppatoo leen encadre leen kan moo koy def Eh, du policiers yi ko rey ñoo koy def te bu yàlla deful mu am frère bu mot frère ay doomam dañuy sonn bu am sens il ngeen xam ni que yéen sénégalais nekk ci diaspora bi di ñibbi Sénégal ñu su ci yéen Sénégal ñu su bëri bëgguñu leen ñu su bëri dañ leen éñaane du ñëpp nag mais ñu su dañ leen di iñaane parce que vous revenez yor oto bu rafet tabax kër bu rafet di sol lu rafet ne xëy nu neex yoru xaalis pendant ce temps am na koo xam ne yéen a takkaloo kër yarandoo màggandoo bu netewul dëgg-dëgg mu yàlla lool du ko neex policiers yi booy policier nga xam seen salaire motul sa deux cent mille loolu du leen neex c'est que benn jalousie mooy ronger leur cœur intérieurement balaa l'unique chose buñ la mën a bunda xatale mooy ñu taxaw ci tale bi sol nante ne pour ñoom am nañ droit yëpp ci sa kaw yaa ngi ñoom bokk leen niveau wala ton tontu parce que ay mbaam lañ pas ñëpp nag mais homme de tenue su bëri ay imbécile lañ loolu du Sénégal rek c'est partout dans le moon mais différence bi Sénégal ak lu mel ni fii fii souvent ma am problème ak policier am problème am policier ñu tontante bu baax mais duñ ma teg loxo parce que buñ ma tegee loxo ma porté leen parce que fu may wax ak ñoom maa ngi filmer parce que fii loi bi jox na ma droit ma filmer sama oto daa am caméra lu tax parce que tey nit su ma mbëkkee ci gannaaw wala mu mbëkk ma ci kanam su ma amul preuve boobu devant un juge wala devant l' assurance du ma mën a am dëgg ci kawam quoi comprendre nga. sama téléphone aussi heure bu ma amee attraction a nit la may njëkk a def mooy taal sama téléphone commencé filmer léeg-léeg sax ma takk ay affaire yoo xam da ngay foone micro la fekk wala bouton fekk caméra la quoi toujours damay filmer quoi ñaata sénégalais lañ fi ñoo xam ba tey ba suba mu jéewul fenn seen doom yi gisatuñ papa lu mu jafe-jafe-jafe-jafe dañuy jël commissaire bi affecté ko ci beneen commissariat beneen raison mais jamais jamais ñu emprisonné loolu nag la sénégalais yi tay yi dañ cee sonn il faut ñu créer benn marche nationale boo xamante ni c'est contre policiers yi nañuy abuser seen pouvoir marche boobu il faut mu am loolu xaw ma ban mouvement ci mouvement yi moo koy créer mais il faut mu am loolu dafa war a jeex